amul euh, euh, lu normal rek ñuy def waaw fu ku laaj benn euh, titre minier mu am nekk si espace ba nga xam ni mën ko joxe kenn kenn kenn yorewu ko et que substance boobu am na fa et que joxe nga sa pièce yëpp à temps ñu yow ñu ñu jox la ko et ku njëkk déposer déposé moom nuy jox kenn du ay du am ay njuuj jaaj wala yu mel noonu am na solo trop ñu ñëpp mën si gis euh, sen bop donc ñu ñu bëgg ay titres miniers daanu mën a euh, dem ci système bi xol bu baax nu koy euh, nu koy nu muy déposer demande bi yeen pièces ñu ko laaj ak mu déposer ko attend temps dana xool ni aussi ni mom demande am ñoo ngi koy traiter et ensuite dañu aider aussi suñu responsable yi nga xam ñong ñoo ngi liggéey. si si ministère bi ñu gëna a ñu gëna a gaaw si si liggéey bi parce que yu bare Euh, su fekkee amul su fekkee mun ko mënuñ ko def système bi dañ dañ leen ko euh, wax déjà moo tax am na ñaari parti boobu ñaari pàcc yu am mooy vraiment la nga xam ne dina dimbalee suñu euh, ministère pour ñu gën a gaawantu traité dossiers yi en même temps dana euh, may ñeneen ñi nga xam ni nekkuñu ci biir ministère bi euh, bëgg euh, ay ay titre wan leen nu ko war a defee ñu mën a xool système bi si carte Sénégal même fan ko mën a amee ak nan ko mën a defee yooyu yëpp vraiment je pense que am solo ñëpp mën si teg seen bët. am solo et loolu euh, vraiment réunion bi am euh, am solo lancement système bi mais am solo je pense que euh, vraiment secteur des mines si mën a